2011 23 juin 2020 neuf ans neuf années ñu gisoon ay acteurs de la société civile taxaw di xeex contre le tripatouillage la constitution tey ñuy taxaw def euh, def taxaw seetlu di laajtewaat encore une fois lan moo des euh, tey ji euh, ci esprit wu lii di 23 juin Omar Faye waaw on a été les niveaux comment ça gàcc am su ñëwee nar xool Ablaye Wade tey su ma xoolee sama économie ni mu mel xool sama santé ni mu mel xool sama justice ni mu mel xool sama éducation ni mu mel xool réew mi tey dañ koy doxalee xool dictature bi am tey damay am gàcc sa combat a été le combat de tout un peuple du marchand ambulant du jaaykatu jete caaf du imam ratib du parti politique du société civile du du association que ça soit syndicat enseignants yi comme tout le ñëpp taxawoon xeex ne liñ fi liñ li fi am na fi jóge te bëggatuñ ko gis mais tey qu'est-ce qui c'est il y a aujourd'hui li ñuy wax une transformation en souteneur de tous les leaders qui étaient là neen na ay Aïcha aujourd'hui la l'élection de Macky Sall à la tête de ce pays daf ñu permettre ñu démasquer pas mal de gens yoo xamante ni seen objectif yëpp moo doon ñu accéder au pouvoir du Macky Sall kese de c'est lui qui été élu mais tous ceux qui à côté et qui combattaient Macky Sall et qui se de de des des des, des hommes d'alerte d'avant-gardistes tous ces hommes se sont transformés en militants ou en souteneurs de Macky sa a été une déception loolu moo tax tey réew mi toll fii bu ñu fa naree wax li nga xamante ni ne mooy 23 juin nen ne kon fii la ñuy fii la ñuy des. Mm-hmm. kenn xalaatul woon ne 23 juin tey bu ñu taxawee di nga gis ay tey ñu exceller egg ba à un niveau. tu as tenté de les détruire. Uh-huh. on l'a fait avec la presse et en passant par Bougane c'est pas parce que je suis là. moom ci boppam moom Bougane avec tout le rôle qu'il a joué tey gis nga li ko dese mooy dee et pourtant aujourd'hui il devait être soutenu comme le président l'avait dit à son temps mon slogan c'est la préférence nationale au détriment de la préférence étrangère aujourd'hui il y a une consolidation des acquis de toutes les sociétés étrangères qui sont dans a été complètement tey suñu bijoux yu ñu amoon yëpp jaay nañ ko boo bëggee dem màggal amatoo bijoux boo bëggee dem gàmmu amatoo bijoux boo bëggee dem si njënte amatoo bijoux boo bëggee dem bu tabaski jotee amatoo bijoux bu korite jotee amatoo bijoux suñu bijoux yëpp jaay nañ ko yëpp la ñuy jaay léegi li ñu desee mooy lan mooy aéroport bi te xam naa dinañ si jëm te su ma cité ay noonu dinaa cité ay tur yu bëri yoo xamante ni tey fi leen peuple bi yaakaaroon tey gisuñu ko ñoom ñëpp a et fait vraiment c'est dommage on a été trahi le peuple a été trahi maintenant il faut ñu jéem a xool nan la ñuy te jëg boobu du metti parce que peuple bi le peuple s'était tellement engagé ba pour nga jël la njëkkati waat du yomb alors Pape Makhtar Omar Faye nee na on a été trahi rupture amaana bi ñu doon xaar di xeex euh, li li fi jógee amaana tey ji euh, gisuñu ko est-ce que yow tu vas être d'accord ak ak moom li mu wax mais mais mais bien sûr rupture bi gis nañ ko mais dans mauvais sens du terme parce que tey jii lu doon xaar euh, ci le président Macky ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo koy jàppale effectivement mooy li nga xamante ni askan bi dañu génnoon ni juin doy na bëggatuñ ko fi gis loolu tey jii nekk lu effectif tey jii juin leen rek nañu nañ si wax man en tout cas particulièrement damay naan ñaari personnes yoo xamante ne rendre un hommage mi commencé ki ci euh, yokk leeram ak le président Abdoulaye Wade parce que 23 juin bu possible c'est parce que dafa amoon xamante ni dafa nangu woon que ni démocratie mooy l'expression des des des mu ni ñi nga xamante ne dañoo ànd ci ñëw leen taxawee nii ñeneen ñi nga xamante ne àndoo leen bu leen ñëw taxawee ñëw leen mais ngeen taxawee beneen wet bi te loolu yaakaar naa ni tey ji moom nañu nekk di dund conséquences yi nga xamante ni ñàkk démocratie moo tax tey ñu xañ ki nga xamante ni mooy Karim parce que lu ñu doon xeex ci 23 juin bi bokkoon na ci suñuy liberté yi nga xamante ni liberté fondamentale yu nekk si constitution liberté fondamentale yooyu tey moom lañ nekk di violer ba jël benn nit koo xamante ni ngi tuddul Karim euh, Gueye euh, Karim Xrum Xax tey mi ngi nekk ci situation bu doy waar euh, nee na Karim instant yi may wax ak yow njabootam jabaram kenn mënu koo gis jële nañ ko fi nga xamante ne mooy prison Rebeuss transféré ko ci pavillon spécial sans pour autant alerter ñi nga xamante ne mooy famille tey jii situation bi mu nekk ba tey ñoom mënuñu la wax ni situation euh, amélioré na wala détérioré te loolu tey jii yaakaar naa bokkoon na ci li nga xamante ne moom lañ doon xeex parce que ba ñuy taxaw 23 juin di naan président Macky euh, Abdoulaye Wade euh, lii nga xamante ne da nga ko commencé di def di fooye suñu constitution di fooye touche pas à constitution sax la nit ñi doon wax di fooye suñu constitution loolu yëpp tey yaakaaroon nañ dinañ dañ mais tey boo delluwaatee tey 2020 nga gis ni pratique sol ay t-shirt dara fekku leen si benn nit koo xamante ne parce que Abdou Karim Gueye la tudd nit tudd dëgg la la la la la bi tudd ñu jël ko xañ ko ay njabootoon teg ko ci prison bi donc mooy tey ji lu gis si 23 juin loolu mooy lu das si combat bi loolu la te euh, daanelee fenn rek nee ne euh, bu ñu tollee ba li nga xamante ni 23 juin Macky Sall bëgg na koo xeex xeex ko ba sonn mun koo xeex ba muy libéré Karim Wade beneen Karim bi 23 juin ci guddi la ko def donc moom nekkul lu dul di fexe ba nit ñi fàtte. symbole ak euh, place bu am importance bu juin am ci démocratie Sénégal parce que ba muy libéré Karim Karim Karim Wade mii nii mënoon na jël beneen jour mais juin la jël ci guddi gi ay minuit dogal koy libéré te loolu yëpp dafay wane ni carrément moom dafa am problème ak le juin parce que juin boobu da koy rappelé li nga xamante ne mooy engagement ay promesse am yoo xamante ne waxoon ak askan bi tey mujj ko respecté. alors ma tourné ci euh, Cheikh Omar Talla juin juste la seule réponse unique mooy la date du 23 juin c'est-à-dire sànq dafa wax ni nu melaan nu melaan nag ci la ma lay nekk dafa am ñoo xam ni jógoon nañ de manière citoyenne mais bi nga génnee image bi léegi nga gis euh, politiciens yi ñenn ñi nga gis ay bukki yu ñëw sol yére xar ñëw dugg ci biir gétt gi def li ñuy def 23 juin des vies ont été perdues donc ñooñu laay njëkk jaale parce que fi ma dëkk am na école bu ñu tuddee du Diop jaale peut-être alkaati bi jaale ñi nga xam ne tëjoon nañ leen ci kaso bi massaw peut-être Simon bi nga xamante ni dóoroon nañ ko mais tey symboliquement parlant Abdoulaye Wade bi muy nekk président gouvernement bu mujj bi sur 36 ministres yi mu amoon 34 yi dañ leen recycler ak DG yi Souleymane Ndéné Ndiaye moo nekkoon premier ministre tey kan laa àndal Macky Sall Farba Senghor bis boobu lañ taaloon parce que na lu mu doon symboliser être nit ñi am luñ ko gisee tey ku ma àndal Macky Sall Aminata Tall fu mu nekkoon Ablaye Wade kon tey waxuma sax on a trahi xaw ma haute trahison weesuwul li nga xam ni moom lañ doon xeex démb tey la waalo gën a aay quand on parle de rupture lañ indi woon nangam de la récupération politique am na ci parce que 23 juin boobu bu fekkoon Ablaye Wade amul grandeur amul esprit démocratique accepter la contradiction balaa ngay xam ni Abdoulaye Wade du Macky Sall jour parrainage bi mu amee nanguwuñu ko ci ànd ak ko ci àndul ñëpp lañ boole duma te tey fi pam Matar di lancer appel moi je dis que que Abdou Karim Gueye a subi quatre opérations en six mois tey lu ko dal état wu Sénégal moo ci jël responsabilité. li nga xamante ni nag euh, moo fi am 23 juin date bi moo fa des parce que ñenn ñi ñi si nekkoon tey ñoom ñoo nekk ñooy téyel Marème Faye Sall saagam. xaw ma ñoom nan la ñu war a siggee xool sénégalais yi nan la ñuy siggee xool jeunesse bi nga xamante ni sacrifié nañ leen ci lu bëri et li taxoon ñuy xeex euh, olof li muy léeb rek euh, lu tëw a xam daa yàggul et tey malheureusement euh, c'était un rêve je crois un de cartes qui s'est affaissé tey les principaux acteurs qui ont eu ces dividendes mooy ñi nga xam ni ñoo doon utiliser nit ñi tey ñi nga xam ne yaa leen doon dégg ñuy porter yenn combat tey liñ doon xeex démb tey la gën a pire te kenn déggu leen

alors maa ngi maa ngi ñëwaat ci yow le temps que ñu xool un peu euh, ce micro donc damay dem juste ci ci ci ci monsieur Youm alors monsieur Youm ñu bàyyi la yow. nga am loo ci loo ci sànni. dana ah, baax na. Euh, allez-y bon voilà merci beaucoup donc euh, comme ni ngeen waxee sànq ah, bu ñuy wax ci 23 juin il faut ñu def benn rappel historique bu am solo 23 juin du bësuma sàmba du bësuma Demba. kooku bésu sénégalais yëpp la il faut que nit ñi comprendre ne bésu 23 juin dafa xew Sénégal lu ñuy wooyee sursaut patriotique mooy maanaam peuple bi toog na ba gis loo xam ne nii tey projet de loi boo xam ne bu jàllee ñun jàppoon nañ parce que ñun ñëpp ay acteurs la ñu woon à l'époque parce que nit ñi dañu war a comprendre ne réew day am foo xam bu fa tolloo toutes les forces vives de la nation dañu war a jóg taxaw pour wax ne lii de gënul ci askan wi kon lii dañ koy xeex 23 juin en fait objectif particulier bi nit ñi fixé wu woon mooy que projet de loi boobu bi ñu doon woowee le ticket je pense que yéen a ngi fàttaliku yéen ñëpp du ma si dellu te du jàll te effectivement nit ñi dem nañ taxaw assemblée nationale même bi ñu xamee ne tey mobilisation peuple bi te ñoom ñu nekk les députés du peuple ëpp na doole ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir hémicycle bi ils ont pris leur responsabilité ñu reculer donc loolu c'était la victoire du peuple alors bi ñuy def loolu aussi xëy na am na beaucoup de choses yu ñu doon sóoraale ci li war a xew ëllëg mais objectif yooyu nag fi mu toll si le peuple bi war a continuer di travailler lu jëm tey si changement parce que bu ñuy wax démocratie aussi tey boo jëlee le cas des États-Unis mais États-Unis boo jëlee euh, Barack Obama moom moo nekkoon le quarante quatrième président des États-Unis nga jël Donald Trump c'est le quarante cinquième donc il faut que mu am ces de sursaut pour léegi alternance waratul nekk luxe dafa war a nekk benn événement naturel buy ñëw à tout moment pour que ñu xam ne dañ ci war di dëkk ba ni ñuy mës a amee nag li nga xam ne nii moom la ñu bëgg carrément ci réew mi pour atteindre suñu ay objectifs donc man euh, objectif boobu rek la mën a rappeler par rapport à l'activité et je pense que pour l'activité en tant que telle ce jour-là le peuple était satisfait. sànq ni biñ ñuy fekk ci salle bi danielle Brotier ñu ni di. relais wu ci micro bi ku ne di jël parole je crois que Pa Matar euh, mi ngi ci mi ngi may àddu ci loolu jeune Y'en a yi fekk ñu fa parce que dégg naa benn ministre APR buy contester la fait que euh, ñuy cité Y'en ci datu 23 juin bi man sama aqulaay taalaa lay wax qu'on le veuille ou non les jeunes de Y'en a marre ont à ce que nit ñi génn taxaw fipp parce que boobu jamonoy fipp la woon donc bi ñuy fekk Daniel Brottier dañ ni mais arrêté leen seen discours yi ñu wàcc ci terrain bi ñoom ñu fexe ba salle bi jaxasoo am fa ñu wàcc ci biir place de l'indépendance taxaw fa fekk fa policiers xeex ak ñoom jóob ci lañ gaañ ay ñoom si moo ak ñu bëri ñu mel maintenant oui. Abdou Karim Gueye. effectivement yóbbu ko prison fa laay ñëw. léegi bi loolu amee président Abdoulaye déjà à partir du deux centir na ni su séddee peuple bi détermination bi c'est à partir du 22 lañ ko sentir nga xeex bu metti moo am place de l'indépendance keroog. bi ñu demee loolu nag. abla pression bi metti ci moom bi ñu xëyee contrairement aussi ak li waa APR di wax bi ñuy comparer ci mobilisation yi ñoom yi ñuy def bu fekkee dafa foiré. qu'on le veuille ou non Abdoulaye dafa bàyyi nit ñu manifester. dëgg la loolu mooy dëgg parce que bu ñu nee yéen mënatu leen a mobiliser. 23 euh, juin peuple bi moo génnoon te bii yoon surtout bi ñuy def seen affaire parrainage yu caaxaan yooyu ñu ni pop bi génnul mais parce que yéen sénégalais mun yen yéen yéen société civile mënatu leen mobiliser les sénégalais mais loolu demeewul noonu le président Abdoulaye Wade en démocrate malgré que reproché woon nañ ko ñun beaucoup de choses à l'époque def ni nag ñaari kan yépp manifester ñu permettre donc ñi doon wax vingt trois mouvement 23 juin taxaw jeneen ñi tamit comme ñoom benn ñebe ci cin la ñu woon gars yi leen ñu daal fay jóge rapidement léegi nag rond point bi yëpp ñu occupé ko pour pression bi metti am ay député yu ne ci biir yoo xam ne kenn ki sax actuellement comme transhumé na jëratul may wax ay waxam ñu def seeni déclaration ak ay pression yu ñu jot ci président de la république ñu daal di dellu ginnaaw maintenant nag fi laay daanee la ci Abdou Karim Gueye xurum xam nga Abdou Karim Gueye c'est une fierté national gis nga Abdou Karim c'est un patrimoine man su ma gisee nit ku am fit gëm réewam buy défendre du ci xool lenn lu réewam ñu bëgg koo ñàkkal fayda bëgg koo bundu xataal alors que ay faussaires ñu ngi ci dëkk bi ñu leen di libérer mais di bàyyi Abdou Karim Gueye moom ci prison bi def ko un otage que personne ne doit accepter d'ailleurs jour bu mu ci yokkaat moom Abdou Karim Gueye en prison c'est une honte pour tout le peuple sénégalais loolu laa gëm donc c' est est le moment pour que tout le peuple sénégalais exige que ñu libérer Abdou Karim Gueye parce que te parce que li mu doon xeex xeex ko pour moom. daf ko doon xeex pour askanu Sénégal yëpp effectivement loolu mooy dëgg effectivement alors ci noonu aussi dinaa dem euh, ci euh, ci ci monsieur Diallo justement euh, dafa nekkoon benn mouvement boo xamante ne c'était pas politique mouvement de contestation la woon population bi ñoom ñoo génnoon en quelque sorte